les les vendeurs ambulants yi nekk fii. ñu leen di teree jaay ba pare du ñu jox beneen place lan nga xalaat pour man mën na leen aider quoi waaye mën na leen aider am na place yooyu bëri yi fii xam ne am na place kenn def fa dara mën na leen daggal foofu jox leen ñoom ñuy jaay seen wërsëg non non c'est moo gën dem sàcc moo gën dem defi leneen et puis loolu yëpp sax booy yi daf leen taxul jóg booy lu leen tax a jóg mooy liggéey ñoom dañu jóge Sénégal ngir liggéey.

nañ leen gars yi jàppale gouvernement Catalunya bi fii amul kenn ku muy jàppale ku dul jeune marocain yi jeune pakistan yi yow nit ku ñuul foo romb ñu téye sa poche palpe la def la lu kenn xamul ba yow doo xam sax waaye da ngay da nga lay dofloo sax man maa ngi nii dan ma dofloo ñoom ñoo ma dofloo récupérer sama famille xaw ma fu ma jëm récupérer sama job jox ko ay pakistan jox yu kenn xamul kenn mënu fi ak dara man fii dama fi maar sen town bi seen këyit sax soxlaw ma raa man ñi dama leen mere billaay wallaay mais wax leen ko en catalan parce que ñun ni fii no esten aquí para vender droga ni para una no sé para borracho no nosotros vina aquí para trabajar y ayudar nuestra familia en Senegal no vina aquí para vender a la calle si vous nous doy una tienda vender no no sé quoi ba bailen bay len fi nan len dama jaay drog calle hospitalier eh, def nga fi ay policiers yu bëre amul band yu yi nga fiy wax yi nga fiy yaakaar fii ñu fi am ñuy ñëw pour fighting dellu Africa xam nga la dimbale waxuma dara sax ay affaire de hypocrite yu fi am affaire de justice bi ñu fi ñuy tegal ay justice de mentir justice boo xam ne kon xamul nu mu demee est-ce xam lo da ngay dox jàpp sa ñambur ñu ñëw indi la ay këyit naan la nii la da ngay ñëw nii da ngay ñëw nii te yow yàlla xam na yow xamoo nu mu demee di lay tooñ ba pare di lay yóbbu ci affaire yoo xam ne bàyyi xam mu dem bëgg mu suñu gouvernement bi parce que ma wax la Pakistan yi dañuy ñëw fi sen chef yi dañuy ñëw fi duñu wax ak Pakistan anglais lañu wax ak waa Catalogne yi moo tax waa Catalogne dañ leen respecté fii ne ñëw bitik bu ñu bëgg ñu jox leen ko wax carré carré bu ñu bëgg ñu jox leen ñu ngi nii mën nu fi am dara yow da nga yor sa xaalis sax ñëw bëgg financé Catalogne kenn du la eh. dimbale lu ñu jàppale noir yi lan la karaw gu bëre wala karaw gu bëre wala noir wala lan la lépp benn la boo daggee fii day xonq luy génn tubaab boo daggee day xonk ñëpp benn noonu jëm leen ñu dimbale ñu doon benn sinon lii leneen lay indi am faya